fexe ba ñu mokkaleen noonu xilaasu zahab waaw keroog nag ma toog ak oustaz Modou Fall bi faral di nekk TFM mu ni ma man dey dama jaaxle di ko waaw ci lu mel nan bokk a ngi toog ci tant bi fekk na waxtaan wa ah. mu ne ma waaw fu ngeen jaar ma ni ko ci lu mel ah mu ne ma man dama jóge dakaar dem sunu dëkk ma ni ko waaw mu ni ma ma dugg ci biir salle de bain bi di xëppoo ndox ma dégg sama jarbaat bu bu tuuti muy jaabante rek di di tari xilaas bi ne na ma ni waaw kii fu mu jógee <laughs> waaye mu ni ma ñun am na loo xam ni amuñu cant gi ndax loolu ku la ko defal ci sa njaboot amuloo loo ko mën a faye ñu waxtaan ca waxtaan bu sore waaye beneen bi nag laa xamul ndax imaam sàmba lay waxal walla oustaz Cheikh lay waxal waaye mel na ni oustaz Cheikh moo ci ëpp responsabilité ndax imaam Samba lañu ko santoon ci xilaas bi def na ko fa tabaarakallah waaw oustaz Cheikh bii nag laa ko ni Seyid Cheikh moom it yóbbante na ci man ni nañ ko defal benn daara alquran ci Tiwaawan njaboot yi di fa jàng waaw ma ne oustaz Cheikh nag comme yaa yor al irshad yow boobu sa yitte la war a doon te bi ma ko waxeeg léegi ëpp na at xaw ma nag ndax def na walla deful waaye na Cheikh a ngi laaj xanaa bu ñu jógee ci tant bi mu jox ma tontu bu ko defee kon nag leneen nekku ci ñoom lañu bëgg wax nañ ko nga xam nga ni ku dem ba bërsax di def recommandation yu toll noonu moo lay xamal ni seen seen àdduna soofu waaw ma bëgg nag ñun ñépp ñu takkaat sunu ndigg màggat sax bu mënee jàng na jàng waaw la mu waxoon ni ku deful tarbiya dangay tarbe mu ne man mii di wax ak yéen tarbiya ma indi champion de course waaw moom Sayid Cheikh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 waaw waaw bi màggal gi ñëw xale yi dañu def benn montage bind ca kaw offert à nos frères mourides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 ndax ku ñibbi si sa kër maam ñépp abal la wa tabaarakallahu waaye ma di lay yëgal ni sëriñ Muntaqa ku baax la ku am yëg la te ku xam lu xew la ndax ñi muy defe ci gàmmu gi xam naa ñi ci tànt bi danañ ni waaw xanaa du kii moo fi doon yëkkat léegi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 lu Seyid Cheikh terele woon mag ñu baax ña rek dinaa leen terel lu ni toll dama yàkkamtiwul nag ndax nekkuma ci suuratu ixlaas ma nga ca suuratul ixlaas waaw bu ko defee kon nag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 occasion dana am wa qul alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina istafa du dëgg kon nag inna allaha istafa aadama <laughs> wa nuuxan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alaalamin ñooñu la tudd waaye ñi leen doon ñu ngi fi am bis góor gi Imam Moussa ndax gis nga filmu benn Laden boobu ñu koy wane muy yéeg ci montagne